ñoo bëgg xam oustaz lan moo la gën a marqué ci 2020 bi. moom ki ma ci gën a xam nga nag man ki ma gën a neex man dama gëm diini donte nag duma jullit bu baax donte wëndëng laa bëgg naa diine torop bëgg yonent bi torop bëgg sama ndey ak sama baay torop yàlla di sama borom nag moo tax suma ma gisee Aysatu Jóob Faal mas na ma ko laaj booba sëñ Muntaxa du xalifa de laaj ko Aysatu Jóob Faal dina ko liir mas na ma ko laaj ne ma l'homme de l'année ma ne ko sëñ Muntaxa Mbàkke mu ne ma lu tax ma leeralal ko eh, daaw ñu war a def gàmmu sidi gàmmoo guddi na bi cees Thiès journaliste yi laaj ma ko ne ma dañ la bëggoon a fal parce que ren yow la yaa nekk lom de l'année ma ne ko soxlawuma ko sëñ Mountakha mooy l'homme de l'année ñu boole ñu ñun ñaar ma ne ko bu mu amati parce que njaboot kenn du ko boole kilifa xam nga lom lom du dara lu dul jëmm jëmm ju at mi lii rek la l'homme de l'année jëmm ju moom at mi rek parce que moo ci wax lu kenn waxul par exemple def ca lu kenn deful ñu ne kon kii at mi atama su dee ay nattu ñu ne atam la su dee bànneex ñu ne atam la su dee mbërum làmb sax mu daan lu bëri ci at mi ñu ne at mi atam la su dee musicien bi cassette bi génn ñëpp di ko déglu ñu ne at mi atam la su dee sidi bii lañ gën a seetaan ñu ne kii at mi atam la sëñ taxa at mi atama at yëpp xamul sax lu corona bii dafa ñëw man ma suma d'accord ci bañ a julli suma ci d'accord duma ci d'accord ba àdduna tukki kenn mënu ko kenn mënuma cee da lii diine la du tarixa tarixa laa dul wax daa am njiit diine ji wax ma koy xalifa bi wax ma ko amu fi ana xalifa diine ji dafa am kon sañ nga cee wax ma sañ cee wax moo tax mënoon lii nii tijji leen jàkk yi ñu julli ci dellu ginnaaw yàlla suturaal nañu jàkk yëpp ubbeeku na ñëpp a ngi xadara ñëpp a ngi wasifa ñëpp a ngi jaamu yàlla mais yàllaa nu moom yàlla moo ne jàkk yi may borom kuy tëj tëjal loo moom wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan bi corona bi taree ba tar ñu confirme niñ tëj leen ku doon julli Touba sëñ Muntaxa moo doon julli lépp luñ ko wax ne ko danga koo war a def def na ko bu dee masque def na ko bu dee daanante nangu na waaye daal lii ñu suñu maam bàyyeel ti taxoon tubaab yóbbu ko ci géej gi nar koo sànki muy déene duma ko sàgganee ci gannaawam xalaatuma ko Xaadimu Rasuul dana julli ci géej gi waxtu yëpp yi ko fekk ci géej yëpp da koo julli te ci kaw ndox mi la ko julli ji nga ñi koy di dof lañu bato bi mu dugg bu ko nit mënee defer te labul yàlla mën a liggéey nit ko julli ci ndox mi te du lab lu nit defer am ci yaakaar lu yàlla defer nag kooku di maamam di sunu di di di kilifa ci réew mi liggéeyal diine xaril diine lu ne kooku bu fekk woon lii <laughs> du demee nii di ba ko tubaab bii xeex bëgg a fay mbooloom bëgg a tas mbooloom ba ba mu ñibbisee di fekk nañ mu gën a dox am na ko xam ne bu demee yàllaa fay toog man kaana lillaay kaana gannaaw def na lu mel noonu nag julli ne corona bi yëpp màggal nañu lépp def nañ ko kon danga naan mi am na ko def lu kenn deful moom moo ci def lu kenn deful waaw muy sëñ Mountakha mi il faut nga accepter loolu waaye bul ni fii bëgg ko bañ a loolu du yëfu nit nit bu defee lu kenn deful làmb ji bu amee roi des ngeen nangu ko ah, ah ngeen nangul nit roi de roi de diineem <laughs> ah mais moo fi ne parce que moo defal loolu yàlla man ni naa la diine laa gëm ku ma gis nga bëgg ko mu jaral lu ne jaral nga ma lu ne jaral nga ma lu ne sëñ Muntaxa bu ma koy bëgg xaaju la doon xalifa xaaju ko doon man nit dama du rijaale ngi nii may wax ci moom mais yiwte laa gis ci moom te li ma li may wax yaa ma ko gën a xam yaa ma ko gën a xam fuuf ndax yéen a ma doog a wax turam man xaw ma koon <laughs> ah, waaw sëñ Muntaxa di nit ku ñëpp seede li mu def ñëpp a ko seede corona ñëpp ku ni tëj nga mu ni du tëj mhm. julli rek màggalu Tuubaa mu ne màgga rek sëñ Tuubaa dana dénkaani bis bii ma demoon bu déet see màggalal leen mu sëñ Muntaxa ne duma ko def ndax korona eh, loolu du ko wax moo tax mu ne korona jàmbu yàlla wàcce rek la mhm. dañuy jëfandikoo li li li docteur yi wax ci ànd ak suñu diine jàmm suñ bopp loolooy dëgg moo tax ma ne la sëñ Mountakha mooy l'homme de l'année de ak ñi mel ni man te xam naa ne mooy lom de l'année ci yow mooy l'homme de l'année ci kii mooy l'homme de l'année ñii di seetaan voilà loolu dara nekkuñ ko l'homme l'homme am nga ñàkk dégg ak métti gisoo léeg-léeg nga ne nit nangam dafa xaraam mu ne la bu ma ko waxati fekk xaraam mooy lu ñu tere lii day arab lii di olof xaraam mooy lu ñu tere rek nga nga mu xuddu tax nga may wax xaraam na te boo ko noonu sa waay dañoo teree lii di mu ne ah bon baal leen ma de waaye bi nga ko ne xaraam rek mu jéngu sakam lom bi moo garaaw ci noonu lom de la ne moo rëy ci ñoom mais du dara lu dul kii moo gañi at mi moo def ci at mi lu kenn deful ñu ne kon kat at mi atama bu dee nattu ñu ne atama su dee bànneex ñu ne atama su dee réussite ñu ne atama lu mën a doon rek ñu ne diw moom moom at mi man nag moo ma bu ma kenn tous laa man wëndëng laa rek xam nga wëndëng man su wëndëng. waaw benn question bu leen laaj ah, mooy que ni ah, oustaz koo xam ni moom waaye sëñ Modou Kara la fan yii paas ñu digoon ay coow ci centre de redressement mi ñu ngi laaj loolu la nga ci ma luy ngor. Modou Kara ba ñuy amante yooyu ngeen di wax man du ma ko seetaan sax yàlla xam na ni yëgu ma tinu ma man sama nit nitu nit jaam bu ma xam. kuy jaamu yàlla bëggumaa xam loo ñaawle bu dee am nga ko bëggumaa xam loo bonle bu dee am nga ko man li ma xam ci nit mooy lu ma xam ci yow muy lu baaxul man may médecin bu ma la manee faj faj la mais Kanta Modou Kara am na lii jaar na fi mais dara même bu loolu amoon bu loolu amoon war naa tax ma bàyyi Modou Kara kon war naa ko di. Mm-hmm. mooy li ma la wax ci jigéen ju ànd ak góor rek. nga ànd ak nit yonent bi ëpp coow ñëpp. sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko coow di ko coow ba mu dem Taïf Habib Masoud Abda ñetti ndajaayam la seetoon mu ngi ci xilaas Seydi Hadji Malick bind dañ koo toroxal xaañ ko mu delsiwaat mag ci la mujj jóge fi dem Madinatul Munawwara gàddaay coow fi lañ ko fekk Moodu Kara bu defoon yaramu neen def tànki neen baa mu doonoon rab du tee xaritu iraa man du ma bàyyi sama nit mukk Kara bu defoon yaramu neen baa tànku neen baa muy wéradi baa muy rab keroog laa koy gën a def xarit Kara sama xarit la piir nag piir bu dara raxu bu ko àdduna yépp bàyyi woon duma ko bàyyi ndax sama xarit la fii nga ma fekk tey Kara fekk na ma yónni na fii ndaw yónni ma tàndara ma meen na bu mu ñorleel boppam du dërëm bu ma jox dërëm cinq francs joxuma ko maa mel noonu man loolu la ma yàlla bindee mais dañuy xeex diw dañ koy waxal lii ma tax ma di la gaaral duma ko def sëñ Modou Kara sama xarit la soxna soxna am sama xarit la yàlla ma booleek ñoom ah ku mu naqari ba ma loo wàññiwoo ma tus man fii réew mi kenn mënalu ma dara àdduna bi sax a lu ñu ma tus man maa ngi ci biir kanafu yàlla borom bi rek laa gëm Modou Kara sama xarit nga wax nag dégguma ko ku ma ko ci moom laa koy déggee bëgguma koo xam nag bu ma ko xamal bëgguma dégg lu ma def bu ma ko dégtal Kara daal moo baax laa bëgg a dégg man sama waay la nu mu mën a mel bu nekkoo rab keroog lay gën a doon sama xarit. bu amuloon lu mu sol keroog lay gën a doon sama xarit waaw karaa nu mu mën a mel sama xarit la loolu moom yàllaa ko def nit nag du bàyyi nitam ndax ay wax waxi caaxaan yi ñuy wax te kaay koo fi gis muy wax la mu làq te wax ak wuti feeñagul a gën a garaaw bu feeñoon rek mu dee ñu suuli ko fii ku nekk fii ne di wax rek waaye ku ne li nga nëbb garaaw na de yow ma tubla sarairu fa maa lahu min quwwatin wala nasir waaw Sénégal xam nga lu ñu bëgg suñuy commentaire nga ànd ak ñoom ci li ne baa ñu saaga la kon la saaga doo ko ko baal yaa moom sa àq lu ma séq yow lu ñu séq ba may saaga lu ñu séq ba nga may wax lu bon lu ñu séq ba ngay ñaawal inna alladina yuhibuuna an tacha al faishatu fi alladina amanu fa lahum azabun alimun fi dunia wal axira yàllaa ko waaw mbokk internet yi ñu safoon di ñu seetaan fii ci dakarnet point com euh, di gërëm suñu kilifa bi ñu fekk ci tey di ko ñaanal suñu borom yàlla guddal ay fanam may ko wér ci barke naa waxamet loolu lañ leen andiloon beneen yoon ak keneen incha allah di gërëm tamit sama cameraman yi sama technicien tumaan yi jaajëf